mu dox ci lu bëree bëri. Mhm. sëñ bi njaay ñoo ngi lay nuyu. waaw lay jaar waaye sama sëriñ di euh, li ñu bokk. di la wax Sigil Ndigalé Thione Seck euh, mu nekkoon koo xam ne nii min nga ko bu baax a baax. waaw comme ni koy waxee ak Youssou. Euh, muy bés bu doy waar ndaxte. ndaxte nit ñi dañuy wax entre diggante ak Youssou ak Thione ci eh, ndeysaan lu rafet moo ci am mujj am lool nag lool kon bu ñu mujjee wax mutul mutul semaine sama benn xarit bu ñu wax texe fekk fekk na ko ñu ngi toog coon woo ma téléphone ne ma Cheikh Abdou ma ne ah, mu ne ma tey dama lay yóbbante ci sa xarit bëgguma nag yóbbante bi yàgg ma ne ko lan la mu ne ma waaw baaw baab lañ war a wax ma li ma wa li ma fa woyoon dinaa ko woyaat waaye pour loolu dëgër foog sa waay jàpp ci mhm. waaye maanaam Youssou Ndour foog mu jàpp ci mu ne ma pour Youssou jàpp ci. damay mhm. yëgal leen ne albumu Youssou Ndour albumu coon bi ñu ne Youssou woyagu ci woon pare woon na. Mhm. pare woon na Youssou mu ngi doon liggéey pour pour liggéey ci pour pour pour pour pour woy ci. Mhm. desatut woon sax lu bari. coon ku gëm yàlla ngi noonu. xam nga coon bu gëmul woon yàlla man du ma jóge kër Youssou Ndour une heure du matin ñëw këram. ñu ànd ma nag moom pour ñu waxtaan mu dem présenté ma jaaga ba pare ñu génn li ma lay wax nii Euh, mooy bi mu jógee RFM. Mhm. fan yooyu. ñu mhm. génn mu di ma déposé kër Adja Sy ñu dem ba ci rond-point boo boori Zik FM noonu ñu taxaw waxtaan nañ fa une heure de temps. Mhm. koy tooñ na ko grand coot ma ne ko doo ñuulal sa karas gi mu ne ma non non Cheikh Abdou way nit ki li muy way day niroo ak li muy def. mu ne ma su ma ñuulalee sama karaw gi damay ni damay la ma waxoon te way wa mooy mooy euh, boo amee boo boo boo gisee bi jaaw mooy. tóor tóoru dee mu ne ma noonu la day yàqu. Mhm. te ma wax la ne la Youssou bu daan déglu coon la. Mhm. comme ni mu ko waxee nii loolooy dëgg dañoo mos a day ndekki man ak moom ak Saint-Louis Maraje Adjaasi ñu war a dem kër Aly mhm. boobu Saint-Louis bu ndaw mu ngi toog. ma ne ko grand xam nga ko man dama Youssou dama koy laaj rek ma ne ko lan moo tax nga yóbbu Saint-Louis mu ne ma coon dafa way way lu am solo. mu ne ma loolu laay bëgg booy xam ko balaa màbb seen kaw balaa ngaa xam li sa baay doon daj. pour ma wax la. yuusu ak coon te coon moo wax la ñoo bokk benn sëriñ man ak moom mhm. dinaa la yónnee boo xoolee ci internet di nga gis photo bu ñu ma ànd ak moom ak seex Bass Abdou Khadre mhm. bu yàggul dafa maa woon ne ma ci studio bi dafa am photo Serigne Abdou Khadre bu bu fi ne gars yi nee nañ ma nañ ko dindi mu ne ma bu naree dañ sama bakkan bi laa ci teg mhm. pour ma wax la gëm yàlla ma gëm ta ak ak taalibe nekkoon taalibe pire murit pire pire wax na ma ne ma benn kilifa nee na ma jox kilifa murit jox na ma ba benn mbaxane nee bi may dem émission dama ko yóbbaale nee su ma amee lu ma naqari wala ma am ay tawat nee dama koy sol ku gëm yàllaa ngi noonu ku gëm yàllaa ngi noonu su ma sañu ma ko génne mais su ma la wonan yoon te lu mu génne dina ma wax ne ma ah Cheikh Abdou yónnee la sa sa waay lii am na benn bés dafa ma wax woot guddi ma wax mu ne ma Cheikh Abdou waxal Youssou nag bëggul àdduna mais nay solu nañ falu mm-hmm. mu ma ci la bokk mm-hmm. pour xam nga nit koo bañ doo taxaw ne na nay nay solo. buy mm-hmm. defati émission na solo. vraiment ndaxte kontaan naa mënu ma wax lépp. jërëjëf Cheikh Abdou di ko jaale njaboot am na solo kontaan naa baax a baax ah, dox nga ci lu bëree bëri yàgg nga dund ak ñoom ñaar ñëpp. te lu rafet rek la ci nekk. ci wàll wu mu féete doon wax.